السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki internet yi suivre seen plateforme bii di MMS Pro 221 MMS Pro 221 mu ngi leen di jaajëfal te di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu rafet ak seen jàppale bu am solo depuis bu mu lancé plateforme bi ci lu tolloog fukki weer ak juróom ñu am yéene gën a dëgëral taxawaay bi ak gën koo yaatal ci jënduk ay matériel ak i équipement objectif bi toll ci 2 millions francs CFA maanaam ñaari million ngir joxe seeni participation man ngeen koo jaarale ci Wave Orange Monnaie Tu numéro BD 76 661 83 23. MMS Pro 221 juste l'essentiel pour la sérénité, l'opportunité et la priorité. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla buur bi wa taala di julli si muhammad sallallahu alaihi wa di ko ñaanal mom ak ay saxaabaam ak képp ku topp ci tànk yi mu tegoon ba mu ak mbooleem jullit ñi nga xamante ni teg nañ seen tànk ci tànk yonent bi salallahu alayhi wa sallam suñ bi ñu ko ci laayante biir ak suñuy mbokk jullit ci lu jëm ci jox sa bopp yàlla ba mu jeex ak di muñ lépp loo xamante ne dal na ci sa kaw moo xam lu neex la momoi xam lu naqari la moo xam musiba la nga di koy muñ te tax solo xutba bi nga xamante ne moom def di len fàttali comme ni ko yàlla buur bi sax yàlla yàlla buur bi waxee ci alquran ne dee leen fàttali ndax dina wa taala dafa bëgg jullit bi di ko fàttaliku tey nandoo ak moom ci bépp jotaay lépp lu ko dal rek mu delloo ko ci borom bi xam ne borom bi ki nga bind dogal amal lépp te moom du def ba noppi ñu koy laaj lan moo tax nga def ñun ñooy def ñu ñuy laaj waaye yàlla kenn du ko laaj lan moo tax nga def lii moom xam na li tax mu def ko te sañ na koo def laa yusalu amma yafalu wahum yusaluun yàlla bu defee ba noppi kenn du ko laaj lan moo tax nga def léegi nag bu fekkee ne ne xam nga ne yow jaam nga ci sa kanamu boroom te yàlla mooy dogal li muy dogal te kenn mënu ci dara kon ñaw sa laaj dafa war a nekk yàlla yow naka nga bëgg ma doxalee bu fekkente ne dogal nga ak mbir yàlla wax la ni nga war a doxalee bu fekkee dogal nag mbir su ko defee yow nga def loolu ndax amoo looy contesté ci dogalu borom bi te yàlla dafa bëgg bu dogalee mbir jaam nangu ko daa di ko ci gërëm daa di ko ciy sant bu fekkente ne musiba la mu muñ ko bu fekkente ne lu neex la mu sant ko waaye bu fekkente ne tamit ah safaan la mu daal di koy muñ xam ne yàlla dina ko ko fay muñ nag muñ koy wax ci ñetti anam lay ñëwee muñ ci topp yàlla muñ ci topp yàlla mooy léeg-léeg yàlla digale ay mbir yoo xamante ne def ko dina xawa a tuuti bakkan ndax bakkan dafa nekk loo xamante ne lu neex rek lay wër lu neex rek la bëgg waaye nag am na ci ndigal yoo xamante ne yàlla subhaanahu taala daf koy jox jaam bi di xool fan la mu toll ak moom digganteem ak moom ci misaal ñu ngi nekk ci jamonoy seddaay yàlla digal la ngay julli fajar jàkka ji ne asalaatu xayru min naw mi nga xam ne fi nga tëdd neex na lool sa mbàjj bi tàng na fi nga tëdd neex na sa nelaw yi neex na loolu boo xeexul ak sa bakkan muñ daal di jóg du sotti waaye li yàlla bëgg ci jamono boobu ñu ne la nelaw julli moo ko gën nga bàyyi fële mbàjj bi ak ndox mi lu muy sedd sedd tamit nga daal jël jàpp euh, même bu fekkente ne sax xëy na bu nekkoon ci yow dong la aju xëy na mën na am doo ko teg sa bopp mais li la yàlla digal la nga war koo def kon danga ngaa war a muñ ngir def lu mel noonu exemple lañ doon joxe ci muñ ci topp yàlla waaye tamit muñ ci bàyyi ay tereem baw ci beneen anamu muñ la mooy lan yàlla subhanahu wa taala daf la tere ci yu bon yi xam nañ ko yu ci bëri nag dafay nandoo ak bakkan maanaam dafay salte waaye bàkkan daf koy bëgg moo xam sàcc la moo xam njaaro la moo xam lu mën a doon ci li nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala daf koo tere boo muñulee tee sa bakkan not xeex ak moom su boobaa lii gën a not ci yow mooy nga dem daal di ciy sóobu te loolu sa musiba lay jur moo tax yàlla subhaanahu wa bu la teree mbir danga war a xeex ak sa bakkan nga muñ ci dayi loolu nga gis ne alal jaa ngi nii yaa ngi ci bureau bi jox nañ la ko daldi lay diggal ci nga yàq deru nit walla ñu digal la ci nga tuumaal gor daal di lay jox alal ju bari loolu dafa neex ci bakkan alal jooju ngay jël neex na ci bakkan waaye boo muñulee doo ko mën a def boo muñulee ci ñàkk def li yàlla tere boo muñulee ci bàyyi li yàlla tere doo ko doo doo ci génn bu boobaa alal ji rek ngay gis mu jox la ko su ko defee nga nekk ci loo xamante ne nii neexul yàlla donc muñ ci topp yàlla mu ngi noonu ci def ay ndigalam ak muñ ci tamit bàyyi ay tereem même bu fekkente ne dafa neex bakkan muñ gi mujj ci catégorie muñ yi mooy muñ ci musiba yi nga xamante ne yàlla subhaanahu wa taala daf koy teg jaam bi te loolu ci ñaari anam dina ci ñëwee yàlla dina teg nattu jaamam bi ngir yëkkati ko ci ay daraja moo tax yenent yi ñooy yi nga xamante ne ñooy nit ñi ñu gën a nattu ci àdduna bi ndax yàlla ñoom la gën a bëgg ñoom la tamit gën a yëkkati ñoom ñoo gën a metti ay natt topp ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a baax ci ñoom ñi topp ci ñoom topp ci ñoom su mal am salu fal am sal maanaam sa degré ni mu gën a toll ci borom bi rek foofu la sa nattu tamit di toll ci yàlla nu muy nu muy doxalante ak yow loolu benn catégorie la maanaam benn explication ci nattu yi yàlla di teg jaamam yi ngir bëgg leen yéegal ci ay daraja yoo xamante ne nii bu ci buñ ci jaarul woon kon duñ ci mën a yegg beneen nattu bi nga xamante ne yàlla daf koy faral di teg jaamam li koy expliquer mooy bëgg bëgg gi mu bëgg jaamam tax na ba dana ko teg ay métit yoo xamante ne daf koy gaawee ci àdduna ngir bu ñëwee àllaaxira mu jërëm mu yërëm ko ndax xam na ne bu ko bàyyee nii mu dundee nii ci àdduna xëy na bu delloo waatee ci àllaaxira kon dina bokk ci ñi nga xamante ne da leen mbugal yàlla bëgg koo fegal mbugalu àllaaxira mu teg ko ay natt moo tax jullit bi léppam yiw la yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ko jàngal mu ne mu ne almuslimu kulluhu lahu jullit bi moom léppam yiw la bu ko nattu dalee yiw la ci moom ndax ay bàkkaar la koy faral ak mbir yoo xamante ne nii daf ko naroon a dal ci lu mu gën a méttee yàlla teg ko ci teg ko ci teg teg ko loolu ci mu remplacer ko loolu wala boog yàlla bëgg na ko gën a yëgati ci ay daraja yàlla daal di koy teg nattu kon muñ rek moom mooy mbir mi salaamu ah. salaamun aleykum bima sabartum ñi nga xamante ne dañoo dugg àjjana sax ba malaaka yi ñëwee élément bi nga xamante ne moom moom lañu la ñu ne lii moo tax ngeen mucc ba ngeen nekkee ci àdduna àdduna mooy li ngeen doon muñ salaamun aleykum bi ma sabartum pourtant malaaka yi bàyyi nañ fi li ngeen doon julli bàyyi nañ fi li ngeen doon woor bàyyi nañ fi li ngeen doon joxe azaka bàyyi nañ fi wax yooyu yëpp waaye bañ duggee ci biir àjjana ñi ba ñu nuyoo ñi fa dëkk ñi dëkk biir àjjana liñ leen wax mooy salaamun aleykum bi ma sabartum jàmm nekk na ci yéen ci sababu li ngeen doon muñ kon muñ mooy clé bi clé wu boo doon wax ne benn mbir rek boo ko defee ci àdduna nga réussir mooy muñ yàlla muñ la bëgg ci jaam bi moo xam nag ci ñetti catégorie yooyu yëpp muñ ci def li muy bëgg muñ ci bàyyi li muy tere waaye muñ tamit ci dëkku natt yi nga xamante ne nii daf koy teg daf koy teg jaam bi yàlla muñ ne ci alquran béggalal sama jaam yi nga xamante ne dañuy muñ wa bassiri sabirin allazina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bégalal sama jaam yi nga xamante ne ñoom bu leen nattu dalee ah ñoom dañuy muñ dañuy muñ daal di delloo lépp ci borom bi ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla mu ne ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy mucc ëllëg ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy texe ëllëg yowm al qiyaama born boroom xam-xam dafay wax mu ne bu fekkente yow yàlla gërëm na la dëgg-dëgg bul faale lenn loo xamante ne nii mu ngi lay dal ci gannaaw ga maanaam yow ci yaa ngi ci àdduna yaa ngi nekk ci lu lu neex yàlla maanaam yaa ngi nekk jullit yaa ngi téye sa diine leneen lépp lu la dal rek xamal ne amul du problème waaye lan mooy problème bi mooy nga weccee sa diine ak leneen lu dul moom moo tax buñ la bu la dala dalee danga nga war a muñ tée sa diine maanaam tée sa diine war na laa gënal jaay sa diine ngir àdduna bari na nag ci suñu jamono ci jullit ñoo xamante ne woyof lañu ak jullite texe ci àdduna wala boog li ñuy wax tekki tax na ba ñoom pare nañu ngir jaay seen diine jaay seen ngor ngir mën a dund dund bu neex ci àdduna te àdduna nekkul lu dul dund guy naxaate ndax lu tuuti la luy jeex la bu fekkee danga ngaa jaay sa diine ngir alal wala nga jaay sa diine ngir ngir jigéen wala nga jaay diine ngir ndomba tànk loolu lépp pertange la ci yow ndax amul lenn loo xamante ne nii diine gën na ko ci àdduna ndax lépp day daal di raaf daal di fii jóge te àdduna lu tuuti la. MMS Pro euh, diine bi rek lu tuuti la waaye yow ci sa jëmmu bopp. mi nga xamante ne yow nit nga boy booy comparer sa bopp ak aduna lu tuutee tuuti mën nga ne benn seconde rek nga def ci aduna booy xool aduna limu limu limu limu limu limu limu mu ci durée te àllaaxira moom ak aduna dafa mel ne benn seconde la ci ci ci àdduna àllaaxira boo koy comparer dafa mel ne àdduna benn seconde rek la li ci des yépp nekk kon lolu waroo ko waroo maanaam waroo cee jaay sa ngor waroo see sa diine waroo see def loo xamante ne dalay jural pertaange bu bu bu nekk bu boo xamante ne dafay nekk lu lu lu sax dàkk lu dul jeex dàkk lu jeex kon yàlla ñu yàlla muccal ci ñuy jaay suñu diine ak di jaay suñu gor waaye ñu nekk ñoo xamante ne suñu diine daf ñuy daf ñuy gënal lépp lu mu mën a doon maanaam ñu téye ko ci suñuy suñuy juróom suñuy fukki dëgëj ñëpp ko ba mu dëgër lenn loo xamante ne daal ci àdduna warul tax ñuy jaay suñu diine surtout si jeunesse bi nga xamante ne léegi bokk na ci yi tax ñuy bëgg di tekki mooy dañuy bëgg di dugal seen catégorie ci ñenn ñi ci yenn euh, mbir yi nga xamante ne nii dafa wé dafa dafa dafa dafa juyoo lool ak diine maanaam bëri na ci ñoo xamante ne pare nañ ngir ñu boole leen ci damay joxe exemple rek ay nekk ak nekk góor jigéen ngir mën a nee nañ tekki ci àdduna ngir mën dundu dundu dund bu ñu bëgg ci biir àdduna loolu musiba bu rëy a la ndax da ko def mu am ben ben période bu ndaw rek bu mel ne da ngay xéewalu waaye xéewal moom àllaaxira rek la amee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jàngal mu ne ñu ki nga xamante ne na àdduna maanaam jóge na àdduna ñëw àllaaxira ñu dugal ko tabal ko aj ñu tàbbal ko safara benn seconde rek ñu maanaam ñu dugal ko génnee ko daal di koy laaj ndax mës nga daj lu neex ba nga juddoo ba léegi danaan mukk musuma musuma am lenn lu neex musuma am lenn lu ma neex musuma am benn benn benn ci àdduna musuma am benn mbégte ba ma juddoo ak léegi benn seconde rek dugal génnee kon li nga ko jaayee jaru ko ba noppi tamit mu wax ñu loolu ci àjjana ki nga ya xamante ne dañ koo dugal benn seconde génnee ko ci àjjana laaj ko ndax yow mës am metit metit ba nga juddoo ak léegi am ben metit aw musuma am len benn len lu musa mës len len lenn lenn kon àdduna kenn du ko comparé ak àllaaxira te fii dañ fee jaar rek ngir jàll nañu suñu diine gënal lépp lu mën doon wallahu taala alam واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار